jàngeen jëf rafet land beex Sen TV bàkk ba kon jibati mi bàkk bonne journée ñu koy woote altine ba àjjuma xam ngeen nag dañu nekk kon si euh, dëj dëpp gi ngir nag waajal li nga xam ne moom mooy njeextalu ay bés bi ma maa ngi fi Mame Mbaye maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku téléspectateur Sen TV ñuy seetaan yëpp. naka àjjuma bi. àjjuma jaa ngi nii rek yeew gi baax euh, yeew gi moom chaque jour moom day baax. moom ànd ak C. ànd ak C xaw ma nag parce que tey xaw ma sawar nag. mais mais mais ça va sawar. ah xam nga rek yenn yi moom parfois da ngay xëy yaram bi day naju. moom dara fin du mois moo diis rek. naju day baax ah. fin du mois moo xam ngeen ni moom saa su ne day diis si ñun ñun ñoo ngi nii rek fin mois bi le premier sax day xaw diis. xam nga ne bu ñu demee ba leneen le 27. Ah. man na xam nga temps yi jour bi fu ma koy nattee ci procès carême bi. Ah, damay naan lundi rek xool tey le jeudi ma teg ci 23 ma teg ci quelques jours. rek xam ah, nga temps yi moom calendrier bi moom foofu laa ko ba tey baax na mu mel ni kon yéen a kaay dañoo xëy dëxëñ ñu namm ko kon jukki faram ko ba mu jàppandi la tribune lan koy dooree am lan la xëy fësal tribune yéen a kaay nag la ma gën a neex ci une bi tey mhm. mooy li Odia def mu di euh, caricature bi Odia nag dafa def grand jeu jeu concours xam nga jeu concours bu ne am na fi gis na jeu ah, concours concours bu ne tey na dafa ne jeu concours jàppal ma PDS jàppal ma jeu concours jàppal ma PDS ku yor micro bi na rek ki may gis na le jàppal ma PDS Macky Sall moom moo yor micro bi gis nga ko yow jarul laajte ah, xoolal rek def na le xoolal borom costume bi ak li nga xam ne <laughs> li xaw a déborde nii du ma ko tudd mu daal daal un perturbateur arrêté un cadeau offert képp ku jàpp ku yënga réew mi bëgg ko taal bëgg ko jax caxal dinaa la jox benn kado waa PDS nag ñoom ñoo ngi nii xam nga ñeneen ñi di làqatu ku ne di wokk dox gis nga ñoom Assane Dioma Ndiaye ah, Toussaint Manga ak Anacim jàpp leen xam nga directrice ah, police. moo taxaw noonu. moo sol sipam su baax nii. war a joué jàpp nag ay waa PDS ñu ngi nii kon mu jàpp ni kon tribune nag daal di koy xëy ak waa PDS yi nga xam ne nee na feesal dell rëbës mu ne nag kon waa PDS duñ bàyyi mu seddee noonu ndax daa ñu amal riposte fas yéene nag kon jàmmaarloo ak Macky Sall ba lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn ci seen ñooñ yoo xam ne jàpp nañ leen ñu teggi leen loxo mu waxit du seen manga bi nga xam ne ak juróom-ñett ci ay libéraux. Mhm. ngi ci danger nag ndax boo moyul kon rëbës dana doon seenu kër ah, waaw kon ña nga sa rëbës. rëbës dana doon seenu kër. Ah, ñu leen di ñoom ñi nekk sa rëbës. dañuy des ak tribune yéen kaay mm-hmm. ak Youssou Diagne mi nga xam ne nii euh, wax na euh, mm-hmm. moom mooy euh, lu njin jaag moom njaag waxi ñi nga xam ne nii ay victime la ñu amoon ay gaañu wala ñu faatu ca élection 2012 yi mm-hmm. ñoom it kon ñu ngi bi nga xam ne nii mooy buzz jamono ji ci internet bi vidéo lan la noonu eh, ah ko ci wax ñu porté la plainte loolu laay bañ Bamba ah, Fall dafa menacé démb nee na ku ci wax ah média bu ci wax dana la porter plainte ah kon du man non yow. dara nga sama xel defal nga ma. ah du yow kat bàyyi ma wax bàyyi ma lan lañ bind ci kayit gëfale. bàyyi bàyyi ta yow nga ma bàyyi ma tàq. <laughs> waxuñu. nee na. vidéo bi mooy buzz tribune nee na mooy buzz waaye àgg na ba ca procureur moom vidéo bi. vidéo la boo xam ne nag. góor ak jigéen lañ ci gis ñu def naka su dul noonu maam Mbaye ah, xam nga rek yëfi mag ah yëfi mag lañ doon def ci duma ca débat kooku jarul solo surtout si matinal bi ñu nekk nii te xam nga rek <laughs> wóorut Sud Quotidien lu mu wax moom Sud Quotidien maam Mbaye dafa xëyee ligne rouge mu mi ngi ci guute ligne rouge la ligne euh, mu di barrage boo xam ni it yàlla buñ ca àgg danger euh, boo xam ni Sénégal njaay mi ngi koy yot lu waral danger gi moo di politiciens yi ku nekkaa ngi xëcc jëmale sa borom mm-hmm. euh, ñenn ñi nag tamanteeg ñeneen ñi mu di cooloo xam ni boo moyul fa mu jëmee réew mi du baax mm-hmm. acteur politique yi nag ku ci nekk àdduna ci ci biir Sud Quotidien di Serigne Mbacke Ndiaye Ibrahima mhm. Bakhoum Mor Ngom Thierno Bokum ak Abdoulaye Wilane ku ci nekk nag na nga jàngatee dialogue politique bi ñuy woote ci mim réew. kon maam Ahmed Macky ñoo taxaw nii. Ah, a ñu de gis nga Macky nag ak kii bu moustache su ndaw si. waaw seetlu ko moustache su ndaw la am jamono jooju. ah jamono jaag wute nag. ah lii kon conjugué nañ ko passé euh, enquête lu mu wax. enquête quotidien dafa ñëwaat kon ci li tribune ñëwee rek mu di yeneen ñi nga xam ne ay victime Karim may sa la leen duppee mhm. lu toll kon ci lu ëpp ñaar fukk ci ay euh, waa PDS yoo xam ne jamono ji dañ leen teg loxo ni leen ràpp ci kaso bi gis nga rek ngir illustrer ko maître Amadou Sall ci bàcc seexaas Toussaint Manga wala sax Mamadou Lamine Massaly maître Djibril Diallo nag lu tax mu àddu jëmale ci lii moom nee na mbir mi lenn rek moom moo ko mën a leeral te it waa PDS xamoon na luy ñëw la ndax seen xeex bi yépp ci Karim Meïssa Wade dong lañ ko tënk mhm. moo tax it bu Karim duggee ñoom it ñu dugg ni rëbëgee eh, kon seen ak lim kon mi ngay gën di takku sa rëbës mi ngay gën di takku uh-huh. ah, amaana bu tëjee Karim nag ñu ñaan yàlla mu wàññeeku <laughs> le quotidien kon lu mu ci wax le quotidien le quotidien moom dafa ñëw ci li nga xam ni moom moo di uh, CREI yi ak itam arrêté yu mu jël mu ne intégralité décision yu CREI yi yépp mu ngi ci biir le quotidien le quotidien mm-hmm. dix pages la Mame Mbaye dix pages fukki page yoo xam ni document exclusif la ko tuddee loo xam ni lépp lu euh, ñi nga xam ne ñooy Henri Grégoire ak i gaayam lépp loo xam ne wax nañ ko jëmale ci atti Karim Meïssa Wade bi moom le quotidien le quotidien def na kémtalaay kàttanam ba am ko mhm. daal di leen koy defal ci biir yéene kaay bi muy dix pages yoo xam ni aha boo leen ko liiree rek incha allah dara dootu leen réer jëmale ci atte Karim Meïssa Wade ak itam daan ak dogal yi nga xam ni CREI teg na ko ci ndodd mhm. euh, le populaire lan la ñuy gindi ci suba gi populaire nak eh, dafa xey ak Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ñi ne ñu ngi xëccoog Karim Meïssa Wade candidature ci wa parti démocratique sénégalais Wade di déet ci dal Karim Meïssa Wade moy candidat tay dañ ko tab ci anam woo xam dafa jaar yoon lool Wade ni hmm. ngir dëgg loolu mu ñu tollu ci juroom fukk ak benn ci ay fédération horizontale ñoo tab Karim Meïssa Wade ñom ñepp teewal nañ ay département yépp yi nek réewum Sénégal hmm. eh, juroom ñen ci ay organisme interne ak 13 fédération extérieure ñi ñoo voté ngir tab Karim Meïssa Wade kon mu di lu leer lo xam comité directeur bu parti démocratique sénégalais dëggal na ko saxal ko kon Karim mooy candidat bu présidentiel bu am na keneen ku yóotu mhm. candidature daan ju ñëwaat léegi ci beneen yéeni kaay mhm. waaye daal moom la populaire jox na kàddu Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade ni amul mbicc ak mbàlloo moom Karim Meïssa Wade mooy candidat bu parti démocratique sénégalais tey du du du caaxaan du théâtre du dara ci anam yu wóor yu leer lañ ko daal di tabbee euh, kon moom daal moo fas yéene ngéem bu jaamaarloo ak Macky Sall 2017 kon kasa kasa ba mooy seen ab candidat fu <laughs> mu wax mooy laaj bi la ko Mame Mbaye dafa ñëw ci euh, Sénégal gi nga xam ne nii euh, lan moo waral soobuwul wala it euh, mhm. déggul ci wàllug violence di ay métital yoo xam ni njortoon nañu ko ci réew mi. Mhm. ndax na xam nga dañu ne woon le 23 incha allah réew mi day tàkk jëppét ñu gis ni nag bal tàkkul sagar xeeñu dara dara amul. dara amul lan moo waral nag dara amul euh, loolu la direct info ñëwee ak ñun tey mhm. mi ngi ci biir yéene kaay ku ko bëgg rek daal di koy yëri di nga xam lan moo ah, waral réew Sénégal tàkkul réew mi moom lu mu dëxëñ ci fajar gi réew mi quotidien nag dafa ñëw Mame Mbaye ci waa parti démocratique sénégalais yoo xam ne kenn déggatu leen daanaka ñoom nag dañoo fàtte wala ñu dëdd wan Abdoulaye Wade gannaaw mu samp laaj ndax ñii dañoo war Abdoulaye Wade wala ñu wan ko gannaaw ñaar la mu di Ousmane Ngom ak xam parti démocratique sénégalais euh, soobu na ci mambay euh, mm-hmm. réew mi quotidien it euh, ñëw ci lu tiis lu métti loo xam ne dafa am ci Saint-Louis mu di benn xale bu jigéen bu am ñetti at boo xam ni dañ koo sàkku violé ko mambay ñetti at donc ñetti at ñetti at la am gis nga ko ci ci misaal bi rek mu mel ni photo ba ba nga ne ca kaw a kaw gis nga xale boobu di xaw jooy lañ ko misaale ñetti at bu ñu la sàkkoo nag mambay vraiment lu métti la hmm? ka ko sàkku xam nga ne magum jëm ñooy sàkku xale yu ndaw ay magum jëmm la ñuy doon euh, passé 18 ans. parfois ñu am sax 50 et quelques années war a def léegi ñoom. moom kay leer na moom kay tàpp gi laa doon ñëw bu buñ la tàppee rek mbir mi jeex kon tàpp tàppate ba mu ñu xam ne tàpp nañ dix personnes ku gis xale bu jigéen buy dem di nga xalaat yónni ko tàngal wala yónni ko leneen suukar wala jëndil la ko waaye du dugal ci néegi ki def leneen daal man ne ah. maa mbay xale xaw ma ci uuf man daal góor du uuf jigéen yora d'accord man daal d'accord ma ci man daal su ma duggee bus sax gis benn góor gu uf jigéen su ma amee place dama naan indi ma uufal la yaa xam yaa ko jur yaa xam juróo yaa xam sarak la ma naan indi ma uufal la man daal wóolu góor daal du uuf jigéen góor du uuf amul xale amul mag góor du jigéen maam bu dee bu bu uuf mag nag. ah, ah loo xam ne ci farta yàlla sunna su Muhammad kay maam bay bu ma ci laaj uufante ngay dagal na ci. <laughs> da ma bëgg a def Iran bu jigéen. waaw ma wax la nag ma man ma. àtte ko ci Iran nag Seydaat Seydaat lu lu lu diina ji wax si uufante. maam bay daal bu nu ko takkee jàkk. Ah. baa ñu takk ko église. uufante dagan waaye mënuma gëm ku am 23 ans 27 ans 30 ans fekk xale bu jigéen bu am 3 ans yaayam dugg ci bis bi amul place bu mu toog ne la kaay ma uufal la hmm. uuf gi bu yàggee mu jur yuuxu de ba leen uuf xale yi mosu bilaay mi naan uufante kon ci ay. Eh, eh, uufante gi doxul benn yoon. doxul benn eh, kon grand place euh, euh, boo xam ne dañ ko dàq ba jëmi jamono. ndax xam mm-hmm. nga ne Alboury Ndaw ni Karim Meïssa Wade am na toll ci ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards compte yaa nga Singapour. Mm-hmm. Euh, te it loolee keroog ci àtte ba ko daal di dàq ni loolee amuñu ci benn preuve kon mënuñ ci topp Karim Meïssa Wade kon di firndeel ni Alboury Ndaw la mu waxoon ni Karim am na ko te dëggal ko te waat ko it Mm-hmm. dara amu ci kon Karim da ko defoon procès daal di koy euh, porter plainte mm-hmm. kon ni démb la leen waroon àtte waaye dañ ko dàq ba jëmi jamono mu di Aïda Ndiongue it procès dañ ko dàq ba jëmi jamono waaye moom it liberté provisoire am dañ ndax da ko sàkku kon dàqate nañ yooyu tamit dàq nañ yooyu war a toogati rek di xaarati ba tey laas lu mu wax laas nag maa mbay ci vidéo bi ñu doon wax sànq ci moom la ñëwaat ah, laas ko ñoom ñi mën a si ñëw laas moom dafa yaatal ndax dafa jox kàddu Bamba Fall nee na Seydou Gueye xam nga ni Bamba Fall ak neexoon na Médina lool jamonoy élection locale yi mm-hmm. defante geeg nervi yeeg lu ne amoon na fi léegi nag jamono ji vidéo bi moom moo xew mooy bës bi vidéo bi nga mm-hmm. xam ne nii kenn eh, ci nee nee ñu day liggéey ci maire bu Médina te Bamba Fall weddi ko nee ñu moom moo nekk benn xale bu jigéen bu am fukki ak juróom ñeent di séq moom naka su dul noonu Bamba nag nee na lu njin njaag ci vidéo bi Seydou Gueye mooy njaag ndax moo bëgg takkal waa maire bu Médina Bamba Fall nag la mu waxaat ci biir eh, las yéene kaay doy na waar mm-hmm. ndax nee na ki nga xam ne nii moom la vidéo bi concerné di monsieur Koulibaly mm-hmm. moom ak ak eh, jigéen bi ñu fekk ci vidéo bi daal ay coro lañ. ay coro lañ ay coro lañ. maanaam daal ñaari at a ngi nii ña ngay génn. foofu ufante dagan na. ah xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom-ñeent maa mbay doo mineur. Ah. ñu lay ufa ka teg ci ay. yow la jullikaay. bulan ya, la neexul xaw ma lu lay ya. neex. ëpp na ci fajar gi. fajaru tey. <laughs> wal fajar man li wax yi sax dafa maa jugul daf may um man man tey xam luñ këy yéen kaay luñ xëy daf may um sax man may um de. te weer baa ngi te fin du mois bi moom du um. wal fajar lu mu wax wal fajar dafa ñëwaat ci médecin yi na médecin yoo xam ne mambay mën hmm. na leen leen leen ñoo eh, la xam doy na. ak rek eh, ñi nga xam ne ñoom patient yi la ñu ak ñoom eh, mu ni kon ñi nga moom moo di ñiy def médital yi ak médecin yi nga xam ne méritunu benn yoon seenu ko mm. ñii daañu leen dàq nu mu gën a gaawee ci hôpitaux yi dàq kañ dindi seen i blouse leen ndax nag hôpitaux yi vraiment ñu ngi ciy nemmee ko yoo xam ne ñaaw na ba jéggi dayoo mm-hmm. médecin yu toroxal seen i patient ak di leen def yoo xam ne daal jaarul dem nañ ba wax fi sax ay médecin yoo xam ne dañuy fekk seen i patient ci douche yi di yi jaar na fi na jaar na fi lu na na fi ah, nga fekk la ci douche kay di la wax yeeg naka su noonu yooyu yëpp nag la Walf Fadjri tënk ne médecin nga xam ne ni mérito wuñu seen blouse boobee te it seenu ko mm-hmm. waat jëfewuñ ko ñoom ñoomee kon daañu leen dàq boo moytuwul euh, ci l'hôpital yi <laughs> ba tey le témoin le témoin yéen kaay moom dafa ñëw ci li ma doon wax sànq Souleymane moom mhm. dafa ni dafay doon candidat bu parti démocratique sénégalais ci le populaire Abdoulaye Wade dëggal na ni Karim mooy doon candidat mhm. Souleymane Ndéné Ndiaye ñëwaat na ci le côté ci le témoin yéen mhm. ne nag kon waa parti démocratique sénégalais même buñ ko dàqee candidat lay doon bu soobee suñu borom témoin ñu jeexal rek maam bay ñëwaat na ci licence 4G yi nga la un appel d'offre bo Nikon, tu kon ci international képp ci wërngal a ku bëgg kon mom euh, licence 4G bi ubbil nañ la Sénégal mo def lu ni mel kon témoin kay ci ak viol collectif bo xamné bu am fukki euh, étudiant ak complice fukki atu mooy tiim euh, tiim gu nekk rek sorko sorko. mooy mooy ñaañu séq kenn rek maa mbay. sorko sorko ñaañu séq kenn rek ñaari attaquant benn ci benn camp. <laughs> Euh, euh. duma ci commentaire <laughs> maam ba di la jox dig daje altine incha allah fi hmm. teewaat yërale li nga xam ne nii moom la yéene kaay yi xëy ak ñun la ca gën a fës bu soobee suñu borom lay doon hmm. ma daw nag ndékki ji sama ndékki bi tey fonde tey moom fonde loo si def tige dege wala fonde bi diwtiir moo ci am wala lan limon man fonde limon laa ci taamu confection de limon nag si fajar gi. aylaayla mam bay boo ko suukaree ba mu saf. paccal ci ñaari doomu limon. Mm. yàlla booy lekk ba yàgg rek daj doomu limon yi ci biir. ci biir ah alab lebu ñun yu baax rek lañ xam. <laughs> ma mbokkam lébu moom yu baax rek la xam. ba altine incha allah sama kaas si kaw dencal ma ko. ba jàngeen jëf man nag ne kii sama dikkaat fi rek jukki leen xibaar yi ba mu jàpp ni 7 cinq 45 lay doon.